bismillahi rahmaani rahim bokki diwaanu Sénégal bokki àdduna asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu si nañ di sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala julli alayhi salaatu wa ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi tibéer ci ndigalam moom sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid ca Touba ak ci kilifteefu sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadir mi nga xam ne njiite comité bi saytu liggéeyu màggal bi feggoo ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma mi nga xam ne moo yor wàllu communication ci comité boobu waaye ak ci kilifteefu Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke Abdoul Akram fii ci diwaanu Diourbel nag Serigne Moustapha Mbacke Abdou Wadoot nekk coordonnateur bi nga xam ne ab Serigne la bàyyi ko ci bànqaas boobu mu wax léegi ñoo am mbegte mbégte dellusiwaat di leen fàttali lu ngeen fàttewul muy bisu lislaam bisu Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy bisu màggal bi nga xam ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul fii ci njaaram nga xam ne fi la ko Serigne bi njëkk a bis boobu nag moo dil siwaat ci waajtaayu màggal bi nga xam ne waaye njaaram ñu ngi koy def ànd ko ak kilifa yi ma njëkk a wax loolu nag ñi ci woo bépp jullit bépp taalibe rawatina ci biir réew mi ak bitim réew ak waa diaspora bi yëpp ndax sëriñ bi radiyallahu taala anhu bis boobu nga xam ne mooy bisu màggal te woote ci ñu sant le ko ci yàlla subhanahu wa taala bis la boo xam ne diggam ak yàlla diggam ak rasulaay ci la lépp comme jage ni ko waxee waaye nun tamit ci bis boobu suñu lépp di jage moo tax ñu ngi ci woo adduna bi yëpp rawatina képp ko ashhadu laa ilaaha illa llaah wa anna muhammadan rasulullaah ñu ñëw sant la ko yàlla ci bis boobu ren jii nag mu yemoo fukki fan ak juróom-ñeent di aljuma ci weer octobre 2018 fii ci diwaanu Diourbel ñu ci woo adduna bépp salaamu aleykum wa بوك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجب أستاذ ميلوم بسبي إن شاء الله تعالى نون لا دمي وهي برنامج بي إن شاء الله نيرك لفسينا دمي بنيو جان القرآن لنكي أبدي نحكي نكون خبنا شو الخديم برضي تعالى عنه القرآن لجيدون تليبهم متابعين خي إن شاء الله تعالى لنيو خي القرآن muy wàcc ay kaamil waaye ak njàngum xasida ci ñi def sëriñ Mouhamadou Boub Nour Daara yi ak ki nga xam ne mooy sëriñ euh, Mbaye Guèye euh, bu ñu demee ba 9h dem jàpp 13h nag incha allah diggante boobu euh, lépp animation xasida rek lay doon bu ñu demee ba 13 jàpp 15 nag ci la ñuy tàmbali nag li nga xam ne moom mooy joxe bernde yi bu ñu demee ba 15 demi ci la conférence bu mag bi di tàmbali muy dund. ak liggéeyu jàmbaari lislaam ja di jàmbaari Serigne Touba ja Cheikh Mouhamadou Al Fadal Mbacke mi nga xam ne moom la ñu darajaale bés bi ci at mi incha allahu taala conférence boobu nag kii moom moo koy animé muy Serigne Bousra Samb mi nga xam ne kenn ku ne xam na xam-xamam euh, Moustapha Mbacke Diouf di membre comité bi moom mooy modéré waxtaan woowu bokki loolu la yem bu ñu demee ba 17h 17h demi nag la ñuy nag Euh, gàttandu kilifa yi nga xam ne ñoo jógee Touba muy délégation bi nga xam ne euh, ñoom ñooy ñëw ci tu Serigne Bassirou Abdoul Khadim Mbacké euh, incha allahu taala bu ñu demee ba 17h30 jàpp 18 nag ci la ñuy tàmbali ñaareelu conférence bi. di li nga xam ne mooy njëriñu xam-xam ci yoonu murit muy Serigne Touba rôle bi nga xam ne xam-xam am na ko ci am njàngaleem. kii moo koy waxtaane di Serigne Cheikhouna Abdou Wadoud incha allahu taala oustaz Salim Bouna Faye di membre comité bi mom moy modèle waxtaan woowu euh, bokk yi di thème bu am solo dañuy bàyyi it borom xam-xam ak daayira yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll woowu daañu def seen i commentaire bu ko defee incha allah ñu def synthèse bi ñu mun ko yóbbalu euh, bu ñu ba 18 heures nag euh, demi jàpp 19 heures demi ci la allocution yi tàmbali moom jot na te kàddu yi. kilifa gi nga xam ne a jiite délégation Touba bu ko defee incha allah taala dina jël ak autorité yi dëkk bi euh, bu ko defee kilifa nga xam ne moo yore liggéey bi fii ci Njaareem ci sëñ Moussa Abdoul Wadoud sëñ Moussa Dieng bu ko defee incha allah taala ñoom euh, dañu yëkkati ay yoo xam ne euh, kaddu jëm ci liggéey bi la doon. Euh, mbokk yi bés baa ngoog ni ko Oustaz Mbaye lu mu waxee Serigne Touba bi mu fi jógee euh, tukki bi lépp liggéey yàlla ak yonent bi waa alayhi wa sallam la woon waaye bi mu dellusee euh, ba jógee diggante Mourtani Ceen Ceyeen bi mu dellusee fii ci njaarim 1912 ba 1927 lépp liggéey bi fii la ko doon defee Oustaz wax na ko léegi 1921 fii la njëkk a woote màggal gi moo tax waa njaarim jël jëlaat cër boobu ngir dundal bés waa waajal bés bi nga xam ne Serigne Touba waxoon nañ ci ko sant yàlla bu subhanahu wa taala mbokk yi bés baa ñu ngi ñaan yàlla ñu àgg ci ak jàpp incha allah taala ñu ngi ci woo jullit ñëpp taaliba yëpp ndax Sëriñ Tuubaa li mu waxoon mooy yow yàlla tukki bii ma tukki ba dellu si maa ngi la ñaan nga defal ma lépp mu njëriñu askan wi waaye nga fegal ëllëg mbooleem li nga xam ne moom mooy ay naqar ak tàngooru sawar di jaaru jon i daal saadatana wal takfina yow bi fi xalqi niirana mbokk yi ajjuma lay fukki fan fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre fii ci njaareem ci jumaay Serigne Touba ji wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala